mu am ñoo xam ni ànduñu ci tëj jàkka yi kenn du leen ko tere mu am it ñoo xam ne nangu nañ tëj bi ndax ñoom it li ñu wax kenn du leen ko tere mais oustaz man benn xalaat bu ma déggoon ñi nga xam ne ñooy yéen ay may euh, ku mel ni sunu oustaz fadilatu cheikh oustaz Dame Ndiaye dafa bokk ci proposition yi mu waxoon ne li mu mënoon bu fekkee ne mën na nekk waaye dem nañ bu ci biir yëg ne senegal ñàkk yar indiscipline daf fi bëri loolu boo ko bëggoon a organiser boo watul lu sot te mooy quartier bu nekk jumaa ja nekk ñu organiser ko mu am ay nit ñoo xam ne dinañ fa mën a dem julli fa bu boobaa mën nañu yóbbaale waa quartier mën a waaye est-ce que loolu dana yomb ci Sénégal ñaareel bi ñu def noonu ci jàkka yi ma ne ko li tax ma wax loolu sal da ko wax léegi sa wax mooy ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci jàkka yi jàkka yi moom lu ne la fay amul sal eh, dana dem ba laaj ne dawru bi maanaam rôle bi jàkka waroon a joué ci nit ñi man jàpp naa ne joué ko maanaam li nga xam ne moom lañ waroon a jëlee ci jàkka daanaka duñ ko fa jëlee ndax bu ñu noonu nañ ko def ci jàkka di fa julli di limité dina am ñoo xam ne daawuñu dem jàkka sax ba waxtu ñoo ñëw perturbe jàkka yi ndax jàkka yi da ngay ñëw taxaw ci bésu àjjuma ne ñaan sàppe yi ni mu war a tëddee mais da nga gis koo xam ne day ñëw benn service waaw nga ne am na sàppe bu am benn foo xam ne espace nga ne diw dugal ci sàppe si rek mu gis boppam hmm. yooyu noonu nag buy am ci te toll ba moment loolu mën nañ ko organiser ci jàkk yi alhamdulilah lu sax daam wax moom laay wax rek sénégalais moo mel noonu dañoo feex suñu féexu bopp pour bañ wax ne dañoo indiscipliné dañoo féex suñu féexu bopp dañoo am excès de liberté. moo tax bu ñu génnee territoire Sénégal de problème bi ñu njëkk a jànkuwanteel mooy problème mu liberté bu ñu duggee Gambie rek xat bu ñu duggee Mauritanie xat bu ñu duggee Guinée Bissau xat foofu dañuy yem yemloo nit ñi ñun fii kenn du wax kenn dara mbedd mi sax boo ci doon def lu dul noonu dañ naan mbedd mbóor la loolu moo fi xew alors lu nit ñi bokk lu ne neexul a senegal lu te jàkk da cee bokk ci nit ñi ñëpp ñoo ci yem màkk sax sawaa unil aakifu fii wal baad la alquran wax boo ne woon jàkk ji ñett fiy dugg benn waaye bëgg ñëw nga ne ko mat na dara la wa annal masaajida lillah moomoo jàkk yàllaa ko moom waaye borom bi subhaanahu wa dafa jox pouvoir doole loolu nag ñooñu lislaam xam nañu ko ñooñu lislaam ñoom xam nañ ne yàlla dafa jox pouvoir doole moo tax boroom xam-xam yi doo fekk mukk bu buur dogalee nangam ñuy xëccoog moom lu tax même bu fekkee li mu dogal du yoon ñoom am nañ ngant seen diggante ak seen borom subhanahu wa taala loolu lu jar a bàyyi xel la buur moo ne jàkk yi dama koy tëj en attendant ba mbir yi sedd même bu la neexul nangul am nga ngànt sa borom même boo jàppoon ne du yoon nangul am nga ngànt sa borom buur nag moom itam mu am information yoo amut mu am agent yu koy liggéeyal yoo amut sécurité réew mi moom lañ ko teg ci loxoom wa ida jaahum amrun min al ni aw al xawfu la adaau bi walaw radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladina yastanbituunahu minhum ba mën nga xëccoog man ne du état islamique nangam nangam mais fu nekk comme ni ñu koy waxee ci wolof fu nekk la fay ñuul moo fay ñag fu nekk la fay ñuul moo fay am ñag kon autorité bi fi nekk territoire bu mu nekk moom lañ sant mu organiser ko lu fi am ci anarchie mooy responsable lu fi am ci feebar mooy responsable lu fi am ci ñàkk jàng ak réer mooy responsable ni mu nekkee responsable ci loolu bàyyi ko mu nekk responsable ci lii yow am nga ngànt sa diggante ak sa borom subhanahu wa taala ku ko xoolee noonu doo ci am benn problème da ngay féex bàyyi autorité bi mu féex mën nga nag ñaan mën nga ñaan masalan ne autorité bi may ñu ñu ubbi jàkka ji nga jàpp ñu ci ñaari police yu ko organisé mën nga wax loolu mm-hmm. bu ko neexee mu nangu ko su fekkee am na ñaari policier su gisee ne mënu ko mu ne la mënuma ko mu jeex ah. imaam yi toujours ñu ngi toog di waxtaan di évaluer euh, bërki démb bi dimanche Sadam Ndiaye ak association bi mu jiite man maa ngi ci dem nañ fi ñu réunion toog évalue mbir yi gannaaw bu ñu demee fan toog ak équipe bi waxtaan ak ñoom laaj leen ñu wan ne affaire bi dellul ginnaaw dafa gën a garaaw donte nam nañ suñuy jàkk est-ce que ñun imaam yi dañu xëy ne d'accord woon ci autorité yi wax dañuy rebelle contre ren léegi ku nekk na dellu ubbi sa jàkk te ñoom nee nañu situation bi si la plan médicinal dafa gën a garaaw te ñun nit ñi autorité bi yaak ñoom yépp nit ñi mooy seen cible population bi mooy sa cible ñoom nga bëgg a sauver wala tulqu bi aydikum ila tahluka. tabarakallah jërëjëf oustaz defe naa ni li nga wax euh, lu lu lu xel mën a nangu la te itamit feebar bi moom warul lenn lu dul nit comme nag ñi nga xam ne ñoom la yàlla jox pouvoir te wax nga ko léegi mooy information yi ñu am ñun amuñu ko waaye boroomi diine it ñoom it d'accord nañ ci ne yàlla moo leen jox pouvoir boobu kon am nañ ngànt ci yàlla bu ko defee oustaz nag ñuy dellu siwaat ci fanaa boo watul moo nekk point bu mujj bi te mooy sunu réew dafa am yoo xam ni mu ngi commencé di bëri lool te seetlu nañ ni loolu bu jëmee kanam mën na yàq njaboot yu bëri te mooy li ñu tuddee drogue bi oustaz seetlu nañ ni jamono yii ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax ci wàllu drogue ay xale yu ndaw ñoo koy jël te seetlu nañ ni xale yooyu tamit nekkuñu ay xale yu ndaw yu kii mais ay borom ay doomi boroomi barke lañ mm-hmm. nu ñu ko mën a waxee mm-hmm. te ñu ñu seetlu ci wàllu média bi mm-hmm. ñaareel bu dara amee ci doomu daara sëriñu daara bi bu amee lenn lu mu def lu woroo ak li dëkk bi laaj coow li topp danañ ci wax danañ ci bind danañ ci commenter danañ ci def revue de presse boo xam ni yow mii doomu daara dina sa xol dana naqari trop mais bi nga xamee ne lii xew na commentaire bi yàggu ci loolu oustaz yow boo ko doon diraasa ban njàngat nga war a mën a am ci dogal boobu ni muy mel ci réew mi ak ñi koy jëfandikoo ak ñi nga xam ne ñoo koy bàyyi ba muy dugg ci réew mi yooyu fan la mën a jëme si suñu réew mi ñu bàyyi la nga dirasa ñu loolu laal nga point bu am solo point bu sensible euh, dorog bi yaakaar naa ne ñi ciy liggéey dama ñu am doole ñu organiser lañ ñu am alal lañ mënul mënuñu traverser suñuy frontière dugg fi tas ko fi jaay ko fi te duwul ne dafa am ay ndey yu ñu am ci biir réew yu leen jàppal yu yu ne ca kaw loolu bu boobaa nag li muy njëkk a def mooy woo suñuy autorité ñaan leen ñu yokk vigilance bi yokk seen équipe yi nga xam ne ñoom ñooy xeex drogue jox leen mooy yiñ leen mën a yiñ leen war a jox fi mu ne nii boo waxee drogue wax punition am na ñoo xam ne dañuy wax ne dañuy xeex ak ak yelleefu doomu aadama ñooy taxaw ne la punition bi dafa diis wàññi ko ñooy taxaw ne la dafa diis wàññi ko lu tax. xawuma mais li ma jortu mooy am na ñu mag ci àdduna bi ñoo xam ne dañuy wax ne dañuy xeex yelleefu doomu aadama ak àqam te ci biir lobby drogue bi lañ bokk donc lu toll noonu nag lu organiser noonu toll noonu mën a yàqee nii ci àdduna bi normalement doole ju toll ni moom wala ju ko ëpp moo ko war a mën a xeex malheureusement li nga wax moo am waa daara yàqaluñ kenn dara léeg-léeg ñu ne sëriñ daara yalwaan lu nit ñi nangam nangam wax fii sëriñ daara yépp sas ci bâtiment bu àggul la ñuy dund ak seeni taali bi daara moderne yi xewee sax la tànni tuuti nga xam ne parents yi am na lu ñuy def ci daara ji ab 15000 francs mbaa 20000 mbaa mille boo xam ne mooy tax daara ji mën a am umagul bu mu dëkk waaye sëriñ daara ji mënut sax am këru boppam ba léegi kon daara ku bëgg xaalis doo jàngale yi fii Sénégal waxuma doo dem daara sax jàng daara mm-hmm. da nga dul jàngale métier jàngale du nekk sa mm-hmm. métier waaw nekk sa kon daara amul amul lu fa ne amul maccaat amul dara yàllaay kese la fa nit ñi di wuti ka nekk ci daara yee jàng alxuraan ak jàngale dafa am lu mu yëg loo yëgul xayrukum man taallama alquraana wa allamahu loolu da koy dund heure boo laalee daara laal nga ko ka nga xam ne nag xamul daara almaru aduwun li ma jahil mhm, mhm. nit ki li mu xamul da koy noonoo te il faut ñu ñeme ko wax mu leer dafa am ñu nekk fii ci réew mi ñu noonoo daara am ñu nekk fii ci réew mi ñoo xam ne seeni intérêt dafa laxasoo ak intérêt yi noonoo daara mhm. ba bu dara laalee daara boo ci waxee fisal ko boo pare am macaat te loolu du la jëriñ dara kat la jël du la jëriñ dara waaw nañu xam ne daara dafa bokk ci sunu réew mi dafa bokk ci Sénégal moom Alaaji Malick daara lañu daara lañu bàyyil moo yor daara ji kay mooy suñu mooy suñu patrimoine Alaaji Malick daara lañu fi bàyyil maam si xam Bamba daara lañu fi bàyyil maam Abdoulaye Niass daara lañu fi bàyyil mag ñëpp daara lañu fi bàyyi te daara yooyu sax dafa avancé mhm. taxanatuñ mat di taal di jàng man ci laa jàngee jóge jàngee waaye loolu amatul léegi boo demee kooku ki daara ja léegi étage gën na mu mel boo demee Fass Touré noonu boo demee xel koom noonu ah fekk benn sëñ daar ndeysaan bu bëgg alxuraan yor fii ñetti taalibeem ñeent ñu ñëw filmer ko wax ci lu ne ah kooku ngi fi nañ dem nañ dem xel koom filmer ji ah kon affaire bi fi ñu ko bëgg xeexee sax du foofu waaw man daal jàpp naa ne eh, te ñooñ daara tekki nañ de demal Sandaga toppal commerçant yi <coughs> laaj leen kenn du ci bindee euh, hmm. càmmooñ ndeyjoor la ñuy bind doomi yu mag yi ci biir Sénégal tey ay doomi daar lañu sëriñ Mbuub kokki la jànge ñeneen noonu ñeneen noonu ñeneen noonu ñeneen noonu moo tax yàlla leen yàlla fay ñu ngi def ci alxuraan ji hmm. waaw kon euh, problème bi problème mu Euh, ay intérêt la ak ay rancunier yoo xam ne dañoo xamul alquran xamuñ daara xamuñ ñooñ daara ñu noonoo leen yal yàlla roj ci mbaña goog ñu bañ daara ak waa daara ci seen xol yi sànni ko yal na leen yàlla remplacer ak njub remplacer leen leer remplacer ak ngëm bañ xam lan mooy daara dama leen di ñaanal mhm. waaye du yàlla def leen buñ demee ba xam rek jeex ñu ñaan yàlla an yashrah sadrahum lil islaami wa lil quraani wa li ahli al quraani wa lil madaaris al quraan loolu lañ leen di ñaan fa tabarakallahu wane nga ni lii xew am na ñoo xam ni dañu bëggul daara te itamit la nga xam ne moom la ñuy wax it dañ ci seenu maccal fa tabarakallahu kon bu ko defee oustaz yooyu li muy tekki rek mooy eh, li nga wax léegi xool nga daara yi oustaz boo seetloo ñi nga xam ne ñoo yor économie Sénégal ci li nga wax léegi ñoom ñëpp daara moo leen defar te li may faral di wax oustaz xam nga ki wax ci daara ne ñi taxaw taalib yi nga xam ne dañu yelwaan mais man li ma li ma doon wax mooy bu fekkoon ne ñoom dañu honnête bu ñu wax ni xale yi daa taalib yi taxawal ci mbedd yi waroon nañu xool ñiy yelwaan ñëpp est-ce que ay taalibe lañ xam nañ ne du ay taalibe du ñu ay taalibe ndax ya rahmatullahi alayhi Cheikh Ahmed Tidiane Gaye bu Louga mos na ci def lu moom enquête bopp xam ñiy yelwaan ñëpp est ay taalibe lañ wala dee nee muy def ay enquête di def enquête ba gis ñoo xam ne ay nit a leen luye mm-hmm. bu ñu xëyee dem yelwaan yi bu guddee ñu ñëw indi li ñu am bu ñu demee ba weer bi de mu dajale li mu am ci weer bi ku ci nekk mu jël bu dee ceeb mu dugal ko ci saako bu dee xaalis mu duuf ko ci enveloppe yónnee ko ci dëkk ba mu jëm loolu am na fii ci Sénégal am boo xam ne man mii wax ak yow oustaz man maa def expérience bi ca Ourossogui euh, dañu fa dem ci hôtel Sogi Sogi la ñu dal ma génn nag côté 18 heures ma ne naa doxantu mu ñëw ba ci station bi ma ñëwee ma gis fa ay nit ñu yor ay pot ay xale di di di ma interpellé ci kenn làkk ko pulaar ndax séeréer la waaye am dégg naa pulaar ma ne ko yow ko ne ko yow fan ban daara nga nekk fan ngay jàng ban saar ngay yor mënuma wax benn aaya ma insisté son xaw ko sonnal mu ne ma man jóge man dëkkuma fi Guinée Bissau laa jóge mais nanguwul ma wax fan la nekk xam nga ñoo ñëpp boo leen comptabiliser mais ay taalibe la ñaa ngi toog daara ji kon li may wax damay dëgg li nga wax rek mooy am na ñoo xam ne daara lañu bañ te nag daara moom damay wax ni abadan abidin mooy Sénégal li fiy dox ñi ñu tuddee yor économie ci Sénégal ñoom ñoo yor ci daara ji moo leen formé mm. ndax daara formation la dina la former bu nga xam ne liggéey bu nekk dañ ko mën a def di nga def commerce te mbay bokk na ci liy développé réew dama lay laaj ustaas ñi dàq mbay ci Sénégal ñan lay seen daara ñi la ah, sëriñ si ñoo fi dàq mbay ñoom ñëpp ci ñoo ñoo ñëw daara ji kon ustaas li nga wax dama la koy dëgëral bu baax bi nga xam ne nag moom lañu laa bëggoon rek ñu tëjee émission bi ustaas mooy dañu fi état dafa teral ne heure sàngam bu kenn génn mooy couvre-feu waaye mu waxaat ne diggante région ak région bu kenn demati ndax feebar bi li ñu tuddee cas communautaire bi loolu moo koy gën a yokk mais oustaz dañu seetlu benn lu xew loo xam ni képp kuy sénégalais loolu war na laa sokki war na laa nax ci ay nit ñoo xam ne dañ leen di jëlee dëkk indi leen ci dëkk te loolu ñu ne am na benn homme de tenue boo xam ne moo nekk ci suuf loolu oustaz bu fekkee am na ci réew ñun ñi nga xam ne ñooy couche sociale bi maanaam ñun ñi nga xam ne ay ndongo lañ mais loolu ku ko defoon ci ñun ban daan moo la ciy bu fekkee ne dem nañ ba koo xam ne moo waroon na tere loolu moom def ko su boobaa ñun loolu loolu yow nan nga gisee acte boobu kooku def alhamdulilah dama bëgg a wax rekk ne ñiy def loolu dañooy jalgati ñaari yoon bi ci gën a garaaw mooy dañooy jalgati njàngaleem yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma waxoon ne adduna bi yëpp dañooy jalgati njàngam moo tax feebar bi tas loolu laay njëkk wax mhm. dafa waxoon ne yu nu mel mbas fu mu am bu kenn dugg bu kenn génn bu fekkoon ne waaw Wuhan yëpp dañ leen quarantaine noonu fa lay yem lu tax laa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa lu mu wax rek am na bu fekkoon dañoo quarantaine noonu suñu ña fa ne kenn génnatul kenn duggul fa lay yem fa lay yem falyaxdari alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim ku mooy yonent Muhammad lu la dal yow la njàngaleem borom bi subhaanahu wa taala moom mi xam alaa yaalamu man xalaqahu latiful xabiir ku ko mooy lu la daal yow la wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaassa affaire bi laal li réew yëpp wala bëggu li ëpp ci réew yi àdduna bi mu laal ko euh, sànq bi ne autorité yi nañ leen nangul lii da cee waroon a bokk maanaam buñ ne région ak région ñu nangul leen buñ ne woon sax dëkk bi bu kenn génnati na ñëpp toog seen kër yi dañ ko war a nangu xam ne ka la koy wax sa jàmm la la bëggal du xañ la sa liberté du bañ nga génn ñu toog ci kër yi man dama doon wax sax ne dañu waroon ñëpp bu kenn génnati lii ñuy wax ne ay ndimbal la yu ñu génnee koñ bu ne ña fa néew doole xam nañ leen ñu recensé fekk leen seeni kër di leen ko jox mm-hmm. bu kenn génn mais kenn du am problème mu su ñu ko defee trois semaines quatre un mois ferme. feebar bu jeex. ñu dox suñu soxla. kon nit ñi dañu benn euh, oustaz woo posé na question fan yi moom mu ngi ba Tamba. Mm-hmm. fa lay jàngale waa këram ne Dakar. Mm-hmm. muy xalaat ne est-ce que euh, gannaaw yonent bi xam réew mu mu dugg wala dëkk bu mu dugg dugg na fii dugg na Tamba kon mën naa déplacé wu. <laughs> ma ne ko boobu accès gul Kaolack ma ne ko accès gul ak yëgul Kaffrine mhm. yow boo jógee tàmba ñaata région ngay traversé di nga traversé région Kaffrine région bu Kaolack mhm. traversé bu Fatick bu Thiès dooga ak si Dakar ci diggante boobu yow est-ce que doo fi tase kenn ku la ko wàll oto bi lay indi mhm. est-ce que doo ko wàll kenn yow ci diggante bu fekkee ne yaa ko yor kon waa Kaolack yu ko amuloon yaa leen koy jox waa kafrin yaa leen koy jox dëkk yi nga jaate amuñ ko yaa ko fay dugal ma ne ko ak loolu yëpp sax nag autorité bi nee na bu kenn génn fooy jaar mu ne ma oustaz wax nga dëgg de toogal fi nga toog bàyyi sa waa kër fi ñu toog ba yàlla seddal mbir yi mu ne ma wax nga dëgg kon kon indiscipline gi ñu doon wax ci Sénégalais yi rek mooy jur loolu yëpp. Mm-hmm. léegi nag ñi fi nekk yor doole ji ku def lu dul loolu yaak ñoom la nañ jaar ak ñoom fi ñu jaar ak koo xam ne da ngaa violé ay droit rek jeex na. oustaz bu ko defee. ci lu ñu seetlu fan yi tamit ci koor gi eh, bu ma la doon laaj maanaam tey bu fekkee ni lan la ci sharia wax te mooy dafa am ku ni tey nit man mën naa toog fii sama kër di naafi ubbi sama rajo wala télévision bi wala rajo bi di wax fële ci jumaa ji di di naafi la ma toog fii di ànd ñoom ci ci naafila boobu loolu am nañ ko ku ko wax bu yàggul am na it ku génn bu yàggul wax ni waxoon na sax avant bi nee na euh, bu fekkee ne dañu wax ne koor bi boo wooree euh, ñàkk naan bi day tax feebar bi da mën na laa attaqué ñu ne kon loolu war na mën a tax ñu añi na tax koor ñaar yooyu lañ bëggoon daal nga indi liñ ci loo xam ni dinañ ko mën a doyloo ndax am na ñoo xam ne tey bu ñu déggee wax yooyu rek mën nañu toog seen kër même bu fekkoon ne sax jàkk ja dana ko ubbi kon mën na profité rek na naa sama kër comme maa ngi déglu euh, noddu beeg maa ngi déglu njàng mi ma ànd ak élément bi est-ce que loolu mën na nekk ci charia alhamdulilah salaatu wasalaam ala rasulillah ñaari question yu am solo la mais dama bëgg tuuti ñu yëkkati niveau bi am réew dafa am ay borom xam-xam yoo xam ne dafa am ay ay critères yu ñu leen di tànnee xam ne àgg nañ ci darajatul ijtihaad wala ñoom ñëpp bu ñu dajee dinañ ci àgg nga xam ne ay compétence moo ciy nekk nga xam ne ay masala yu bees su amee ñooy toog tontu ci. saa dugg dafa ma ci laaj mooy loolu nga wax mooy euh, li ñu tudde ittihaad ce que ñëpp ñoo war a def ittihaad ak benn ñu wax fiqu nawaasil ce ñëpp ñoo xam nawaasil yooyu bu amee nan lañ ko war a mën a defee ifta loolu tamit xanaa nga moo tax ma ne dama koy yëkkati moo tax ma ne dama koy kon ijtihaad loolu la bëggoo wax ne faw réew dafay am benn organe spécial boo xam ne moo xam état moo ko fi tëraloon nit ñi ñoo d'accord tànn ko tëral ko mais bu ko état tëralee loolu moo war a dem l' état est toujours léeg-léeg mu pénaliser état pénaliser euh, population bi waaw ndax dañu def diine ji dañ def tasayub maanaam ku ne dañ laa bàyyi rek nga euh, jaar saawa su la neex Sénégal ñun ustaas yëpp ustaas lañu ñëpp am xam te nit ñi ba ñu jàngee sax kenn ku ne ak balance bi nga jàng ak mi nga xam donc euh, réew dafay war a am hayatul fatwa wala boog majlisul islaamil ala benn organe bu mag boo xam ne mooy saytu diine ji loolu ñu ngi woo état profité ci émission bi wax ko ne na ko taxawal ñëwul pour contre ko ñëwul pour yàqal ko waaye dafa ñëw pour gën a indi stabilité indi jàmm indi euh, vivre ensemble ci biir communauté bi amut lum ci ragal lu ci ne jàmm rekk ci nekk te moom moo koy tëral ku ci jàdd yoon mu def la ni muy def kum jox benn poste de bi responsabilité nga jàdd yoon mu xisaab la jëlee la fa kon amul problème ñu ngi ñaan état na ko tëral ñu ngi ñaan président loolu nag ci bàyyi xel bu tëral ko am ay critères yu ñu leen di tànnee duñ ko tànnee parce que da sant laam wala da ngaa bokk jamaat ba rahmaan waaye day am ay critères de choix yu ñuy teg yoo xam ne na sévère amut laamiso ñu tànn ñi nga xam ne am nañu martabatul ijtihaad àgg nañ fa wala ñoom ñëpp bu ñu dajee dinañ ko mën ijtihaad jamaa yi bu boobaa ab nawazil su amee maanaam mbir mu bees de kët ne jonn am li tudde fiqu nawazil ñoom ñoo xam lii ban acte lañ koy jox ci lislaam ñu àgg ci jurisprudence islamique foofu ñooñu nag laa bëgg a wax ne su dara xewee ñoom képp ñu am droit wax du problème ak universitaire jàng ci université ba génn déedéet du am nga ay diplôme supérieur déedéet ndax am nga rutbatul ijtihaad wala déet wala mbooloo mi am rutbatul ijtihaad bu ñu la dugalee ci seen biir di di nga mën a ànd ak ñoom wala déet fekk loolu amul yuy dina bëri problème ci Sénégal kenn ku ci nekk mën nga génn wax lu la neex bu ko defee kon li ma bëgg a wax dama doon commencer loolu rek wax diina ji dañ ko war a saytu te ne ko état saytu amul problème waa yaakaar naa nga tëj leen jàkk yi ñu tëj ah léegi wax nga ci diine de waxu état yi léegi de mm-hmm. danga wax ci diine ji wax ci institution bu mag boo mu ne yonent yàlla Muhammad bi mu ñëwee Medinatu Munawara balaa taxawal këram da ko taxawal ba pare mm-hmm. kon eh, am na loo xam ne du ngànt am na loo xam ne du ngànt bu ko defee kon ñaari masale yii nii borom xam-xam yu bëri wax nañ ci maanaam euh, pandémie bi dafa jur euh, masala yu bëri yu bees yii ci la bokk ñaari nga tudd yi doon te junni téeméer fukk ak benn borom xam-xam yu bëri wax nañ ci mais léeg-léeg sama classe gi dañuy liir dara duñ dégg ñu dem ci média yi ñu relaté ko waxaat ko mm-hmm. fekk comprendre ñu ko borom xam yi ko doon wax yépp ñu ngi doon wax ñu ngi doon wax par exemple buñ limité woon ñiy dul ñuy dul ci jàkka ji ba pare mu am ay écran yu génn ci biti nit ñi nekk ci kanam écran yi mën nañoo roy ci jàkka ji selon ecran yi ñu tiim loolu moo taxoon ñuy wax comme nga ne rek jumaa ji bu ñuy julli mën na ci biti buñ ne allah akbar ma dégg ko ndax naa mën a ànd ak ñoom yu ni mel moo taxoon ñuy wax mais du nga toog fii jàpp màkk ñu julli tisbaar nga ànd ak ñoom wala jàpp grande mosquée ñu julli tisbaar nga ànd ak ñoom ci télé bi wala ci rajo bi loolu taxuloon ñuy wax kon ñoom ñu ngi doon wax rek jumaa ji ci yenn réew yi loolu sax ñun amuñu ko ak mm-hmm. écran yi nga xam ne moo génn ci biti nit ñi mën a roy ci écran yi loolu moo taxoon ñuy mm-hmm. euh, loolu mooy benn masala bi kon ñi ñëw yaatal ko àggul foofu al amru ida daqa tasan ida tasan daqa am mm-hmm. ay qawaid ay règle ay daabit yoo xam ne ñooy tënk li ngay wax ci xam-xam sooy wax nag te xamoo yooya euh, li ngay wax du du du baax fi nga teg si tànk du foofu da nga tarxiis tarxiis loo ñeneen waaw euh, diine moom heure boo ci waxee xamoo ko mu yéen sax waxoon na ko ngeen am ay nit juhaa yu réer yoo xam ne dañuy dañuy fatwa fa dallu wa adallu sànku sànk ñeneen yàlla bu ñu bokk ci ñuy sànku yàlla bu ñu bokk ci ñuy sànkaate loolu mooy benn masala bi beneen bi moo nekkoon ci lan. mooy euh, ki waxoon ne bu ñu demee ok waaw d'accord gis nga yàlla mooy ki nga xam ne dafa xam lépp ala kulli shay'in xabiir shahid bi kulli shay'in alim yàlla mi xam lépp buy tëral loo xam ne. àdduna bi yëpp ci tënku jamono yëpp tënku ci mënu koo xatal ndax xakim la yàlla bi mu santaane koor nda am ñum ca seet ci ne nii bokkuñu fa man kaana minkum maridan aw ala safarin xam-xam yi yaatal ko dugal ci kii ëmb te mënu ko boole koor kii nàmpate mënu ko boole koor kii liggéey liggéey bu méttee méttee mënu ko boole koor te amul beneen liggéey bu dul boobu te amul beneen mécc mënul loolu amul fu mu dundee fu dul foofu ak feebar marat musmin yu demee nii ñuy def jalis ak yooyu feebar boo xam ne yaakaaruñ laa yor yaa bur uhu yaakaaruñ mu wérati ah, ak ñi tukki ak keneen ku feebar ak feebar bu mën a doon ñi yàlla dafa wax ne ñoom nañu dog bu koor gi jeexee ñu fay kon amul problème lu bees dafa fee amut lu bees amu bi waa ji dafa korona mënta woor bu mu woor wasalaam bu jeexee mu fay bu faatoo amee bor listam lislaam daganal na say ndono fayal la jeex na kon lu fi jaar benn masala bu ñuy ñëw taawi ko xëcc ko réyal ko daf fee nekkut te it am na lu jar a bàyyi xel gis nga ijtihaad léeg-léeg boo koy def dafa laaj nga am yeneen i borom xam-xam yoo toog waxtaan ak ñoom laaj leen ñu wax la nga def synthèse doog a wax Ibnu Abbas neen nañ ko benn mbir ñu koy laaj daanaan ma xukmu daanaan wa ma daanaanukum haadihi ñuy naan daanaan euh, luy àtte mu ne luy daanaan daba borom xam xamul lépp ñu expliquer ko mu ne leen mooy sàngal bu leen ngontu tur yi bu mu leen nax dafa xaraam jeex na kon al xukm ala an tasawurihi balaa ngaa wax dara danga koy maîtriser xam ko waaw kon maîtriser mbir xam ko laaj asxaabul xibra ñu spécialisé wu ci domaine boobu teewul di rek de mawthuqin nit ñoo xam ne am nañ ci ñoom confiance xeex diine ak yàq ko taxu leen jóg nit ñi dañ leen xam démb tey doog ñëw ñooñ lañuy jël li ñuy wax ñoom la ñuy consulter bu ñuy def fatwa jël seen expérience ak seen expertise ah juridiquement ñu jël ci ñoom waaw jël ci ñoom conseil doog a mën a wax donc lii su amul heure boo waxee li nga wax njuumte la même boo jàppee ne yow xam nga mm-hmm. même boo jàppee ne li nga wax am nga ci droit même boo jàppee ne kenn ëpp lu xam-xam mais terewul diine yàlla ji moom ah wala taqfu ma laysa nit ki war naa góor-góorlu ba du waxal yàlla lu mu xamul ataquluna ala allahi ma la taalamun responsabilité bu rëy la wasalaamaaleykum tabarakallah kon ustaz ñu ngi lay remercier ci jotaay bi am solo bi ñu seqal ak yow li ñu soxla woon ci laaj yëpp bi ñu la ko laajee am nañ ci satisfaction macha allah allahuma la abdour am na yàlla gën a barkeel xam-xam sa yéeneeg sa njaboot ak sa yéeneeg ci say daawa bi nga nekk na yàlla gën na ci jàppale kon bu ko defee daal oustaz dañ lay bàyyee kàddu gi rek bu fekkee am na ay nasaay yoo mun a jox ñi nga xam ne ñooy jullitu àddina si rawatina yu Sénégal waaye nga ñaanal suñu groupe bi yéene biñ ci am nga xam ne man la jox wala islamique bi lépp lu ma ci bëgg ànd ko group bi muy sunu caméraman bi ak Keba Sané ak waa group bi yépp liñ ci yéene ci taxawal diine ak jàppale l'islam eh, ak jàppale population bi yàlla defal ñu daal loolu ñu atteindre ko mm. ci barke weer wi ci barke alquran ci barke ki ñu ko wàcc ci moom kon ñu delloo la alhamdulilah xam naa tàggatoo bi bàyyi ma def ko ay conseil am na ci biir waxtaan wi yu ay appel yu ma def bàyyi ma tuddee ko appel gannaaw daa jëm ci suñuy kilifa yooyu ay appel la ñaan ñaan ngóor bu mu def nangam appel la dañuy ñaan rek ñoom ñooy yi waaye dinaa wax sama mbokki daara ne nañu organise daara bu ñuy def lu jóg rek ñu ne day xeex daara ba luy dimbale daara sax bu ñëwee ñu dàq ko loolu day loolu daara waaw ah, dafa am dafa am wax naa sànq ci daara tudd ma lii dama ko war a tudd nag su ma ko tuddul wax ji amul équilibre nañu bañ nañu bàyyi lu ñëw rek ñu jàpp ne loola dafa ñëw pour xeex daara ci misaal état dafa xëy tëj école yi ay école am moom université ba ci jardin d'enfants da koo tëj daara yi duñu école lan moo tax ñu tëj école yi parce que am na xale yoo xam ne dañoo am corona seen kër ñëw école ñu ragal ñu wàll ko ñu ñu ne kon nañ nañ te boo demee fu mel ni France man xam naa ci ay femmes fa yoo xam ne ci école bi lañ ko jëlee ñoom ñoo ma informé ma xam loolu kon eh, bu ñu bëggee wax ne gouvernement bi dafay xeex daara yi moo tax mu mu bëgg a suñuy daara yi mbir mi demewul noonu la ko wax ay la njëkk a mm. dama jël exemple boobu rek <coughs> am na loi yu ñu fi tëral pour améliorer daara yi mu gën a baax. mu bokk ci li nguur gi géré pour xeex daara parce que tubaab bi ngeen fi remplacé dafa tasoon suñu daara yi xeex ko mbir yi warul tëddee noonu waaw lu ñëw rek nga def tashaawul tasmis bi baaxul ñëw rek nga ne lii baaxul bonal ko sànni euh, du noonu dëgg la vigilance bi ñu war a am yeewu ba kenn du duñu nax mm-hmm. euh, la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké rahimahullahu taala waxoon rek nee nañ sëriñ si muus wi mm-hmm. te ñu muus ñëpp ñu def leen taalibe ñoo leen gën a muus foofu. Mhm. kon ab sëñ daara dafa war a muus. war a yeewu. Mhm. loolu daal bëgg naa koo joxe ko conseil beneen bi ci des tam eh, gis naa wax dëgg yàlla nguur gi ñëpp woo na leen dugal leen pale waxtaan ak ñoom ba mu des nit yi diine yi waxul ak ñoom ci mbir yi ni mu tëddee te bu subaa mu ñëw neen ñaan leen xanaa gëmut seen ñaan yi. Mhm. Hmm? loolu daal wax dëgg yàlla man de rafetlu ma ko. kenn ma ko ah man de rafetlu ma ko te ñi fi ne yëngatu ci terrain bi yëpp moo xam kër sëriñ si la wala association islamique kenn rafetlu ko loolu daal jàpp naa ne lu ñu war a corriger la. war nañ leen def appel ñu kon lu ñu war a corriger la xaw ma nag fu mbir yi tagee fan la information bi dese léeg-léeg seen seeni lay mooy. wooy diine ji boo woote woon dañoo bëri ay pàcc pàcc doo xam koy wo koy bàyyi ñaati parti politique moo fi nekk. loolu du lay lay daal waa daara nanguwuñu ko. lay wow moom. loolu moom motul yéen waa état waa daara nanguwu ko yéen daal da ngeen jàpp ni mbir mi yéen a ko moom yéenay buur yéenay bummi bedd ci nit ñi sànni leen fële am réew du doxee noonu dañu am patience rek mën a muñ. Mhm. di am lu ñu seet am lu ñu bëgg bëgg réew mi dal bëgg mu am jàmm bëgg benn problème am mais du tere nag dañu naqari ñuy wax ne naqari nañu ba ñépp dégg ko wutuñ ko dara soxlawuñ benn dërëm du dara mais bokk toog waxtaan waxtaan séq waxtaan wi waxtaan ba li ñuy def leer ku ne xam foo teg say tànk gis nga association imam yi am na ñu bëri ñoo xam ne dañu dal seen ko neen yéen yéen yéen wax état mu tëj daara yi te état consulté wul association imam yi waxu la am ci dara maa ngi wax maa ngi bëgg a wax LIPS laa bëgg a wax ligue laa wax parce que boobu laa xam bëgguma bu subaa kenn jël rajo bi di ma tontu waxuma waxuma beneen bu ma xamul bii xam boobu laay wax bii nga xam boobu laay wax waxuma beneen waxuma beneen boobu laa wax Ah. ak dama jël comme exemple rek te boobu ba léegi wallaay ñu ngi góor di maîtriser nit ñi mm-hmm. di toppatoo jàkka yi di waxtaan ak nit ñi di encaisser coups yi mm-hmm. maam Dame Ndiaye mu ngi fi tudd am na ñoo xam ne wax nañu ko fii lu ne mu muñ rek mu muñ rek mu muñ rek mu muñ rek mu muñ rek kii nga xam ne dafay encaisser ay coups ci boo jëlee décision waaye waaye te nga ko yombalal mm-hmm. même boo jëlee décision ba pare woo ko sax expliquer ko émission majalisul ulama sualun wa jawaab émission bi fi lañ ko yemale gannaaw bi ñu seetsee imaam Cheikh Abdoulaye Lam nga xam ne moo yor ñoo jiite jamiatu Ibadu Rahman fii ci Sénégal ñaanal ko yàlla yàlla yàlla yàggal ko ci kanam jamia bi ko it loo xam ni def na ko ci daawa bi yàlla ko yàlla nangu te barkeel ko te yaatal ko defe naa leen li mu fi wax bu ñu ko déggee dina nekk njëriñ bu rëy ci umma bi yëpp li mu fi wax ci ay seetlu ak ay giraasa bu ñu ci jaaree yàlla mën nañu def lépp loo xam ne moom lañu bëgg rek ñu am ko kon bu ko defee li koy wax daal mooy kontaan nañ ci daje bi waaye tamit am na satisfaction yi ci li nga xam ne daal bëggoon nañ ko laaj waaye bi yàlla may ñu toog ak yow dëgg-dëgg liñ ci soxlawoon yëpp am nañu ko kon li ñu wax dal mooy yàlla ñaanal la yàlla yal mm-hmm. na yàlla la amiin na yàlla gën a yokk sa leeru dënn li nga xam ne moom nga jiite ci jamee bi mooy ni nga ko waxee rek mooy man yàgg naa leen a xam mm-hmm. fa tabarakallahu am naa cay wëllëre mm-hmm. am naa cay xarit eh, ndaxit ku mel nii eh, suñu mbokk ma leen Moussa Fall sama xarit la woon bi fii nekk ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni li ñu seq mooy diine bi ndax it mooy loo xam ni yàlla bi muy waxee ne ixtilaaf bu amee raxma la ci xeet kon loolu moo indi rek pàcc pàcc yi ndax kenn ku nekk rek la nga fay def da koy def ci yoonu yàlla da ngay liggéeyal yàlla kon jameetu ibad rahman dañuy liggéey ci toolu yàlla yeneen association dañuy liggéey ci toolu yàlla yeneen mouvement yi dañuy liggéey ci toolu yàlla waaye ñoom ñëpp yàlla dañuy liggéeyal kon nag yàlla yàlla barkeel liggéey ko defee rek nga def ñaan ñu tàggatoo ko wax la ni daal insha allah mm-hmm. ñun ñu ngi fi mm-hmm. bépp cérémonie mm-hmm. boo xam ne jamaayat bi mu ngi koy organiser bu ñu ko yégee dina ñëw couvrir ko insha allah kon loolu daal lañ lay wax. jàpp leen ne am ngeen parti. insha allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكم وعدل فينا قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا رب الراحمين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء